summer wine. comme suñ mbokk yi gis ngeen tey li nga xam ne moom la leen mun a toggal ñu seetaan xam naa ne fi nekk nii jànga ngeen nag ci li nga xam ne nii nag euh, mooy benn jeune marocain bi muy toogi marocain a a ñoo seetaan a bi wax ci li yéen programme bi naka ngeen fi si rawatina tooga bi yéen lan ngeen si jàng ba tax na saa su nekk ni ma leen ko def faral di waxee ñu ngi wax sponsor si ñi nga xam ne pare nañoo bokk ci programme bi pour sponsor programme bi eggati leen seen téléphone yi rek ngeen call call ci 9933263 9933263 man la Mame Dieng soo leen ma callee di ngeen ma am ci marketing department bi su ko defee rek ñu dal di jokkoo yéen am nañ fi yeneen other programmes yoo xam ne nii ñu ngi fi ba tey rek mun ngeen a bokk ci programmes yooyu noonu tamit waaye képp koo xam ne ne jamono ji bëgg nga pro sponsor programme bi bakk bi call ma rek ci suma mon mobile bi ci 99 33 263 ba tax na ni ma leen ko dee faral di waxee rek bakku bi yéen yéen a ko moom askan bi dafa am lu war suñ diggante yéen li ñu war suñ diggante yéen dañ koo mutali ba mut ba tax na nag fi nekk nii xam ne li a doon seetaan waaye gis ngeen ne fi nekk nii ganaar gi moom ñu ngi jël di jël li nga xam ne ni moo war a bi am na ma am li nga xam ne mooy tomate salade bi li nga xam ne ni am mooy am carotte bi mu kaani salad bi ak li nga xam ne ni euh, mooy am nen bi ak kikumba bi ñoom ñëpp ñu fa gis ngeen ganaar gi nag moo tax ma ne leen bii boo ci amoon tam pooji xar ma def ko ci mara bu béy boobu tam dina neex lool ma di leen bëggee bu baax a baax a baax gis ngeen ne fi mu nekk nii mu ndaw mu ngee soos li nga xam ne ni euh, mooy programme am am ceeb bi gis ngeen ne bariwul nag diw waaye lii boo ci tibee fekka ta tasee li nga xam ne ni mooy maalo mi nga xam ne ni dal dinañ ko jël boole ko ba ta ba pare dina neex lool waaye nag fi nekk nii xam naa ne active bi ñu ne egsi na ci ndong li ba tax na dama bëggee ki nga xam ne King Jo Sirifo Emily ak ki nga xam ne ni mooy Mbay ñoom Moustapha Lalla ñoom ñëpp jàppoon ci programme bi waaye di bëggee stressé mi nga xam ne doon direct programme bi waaye ki nga xam ne nii nag mooy Moussa Sané mi nga xam ne tey moo nekk ci studio bi maa ngi ko bëggee bu baax a baax bu bëggee rek képp koo xam ne jamono ji yàlla na programme bi waaye nag di bëggee suma yaay jooju di ajal si Yacine Ndiaye di la ñaanal yaa booy nga duna ba duna sàppi la di bëggee nag ki nga xam ne suma maam di ajalatu daara Seka maam booy maa ngi laa ñaanal fan ak wér te di la ñaanal nag nga di ñu yokka ñaan yow itamit nag ni ñoo def rek mooy di bëggee ko nga xam ne mooy Hadis la Njaay waaye di leen wax ne tam képp koo xam ne bëggoon naa bokk ci programme yi ekati sa téléphone nga call ma ci 99 33263 9933263 waaye nag di bëggee ci FJ Jeng Fay bu baax a baax moom mi nga xam ne moo ma ñawal dagit bi ni may bëggee nag nga xam ne mooy yooyu sa jawara Samba moom mi nga xam ne nii moo ma make up dal di ma musóor defaral ma ba ma su nekk soo ma gisee waaye di leen dig incha allah ko yàlla mayee fekkee talaata di ñëw ak yeneen façon ñu tooga seen xarit la woon maam Jeng jërë jëf maama jeey dimanche bu nekk si GRTS si juróom-ñaari waxtu yee genn wàll si ngoon ba si juróom-ñetti waxtu yi jamono ji programme bu xew te ànd ak jamono Seize the day. Seize the day. A compelling blend of drama, passion, and misery. Luciana is young, beautiful, and rich. Her moments are fun and never-ending. But a close look reveals an insensitive and envious girl. Being a spoiled model, Luciana's envy of supermodel Helena extends beyond the catwalk. <gasps> Are you okay? Get away from me. You must be happy with what happened. It's a curse. You've cast a curse on me. Oh, my God. Helena Mitz falls in love and marries Luciana's father, Marcus. Dad! Dad? I just can't believe it. I'm starting to think this is a trap the young lady is walking into the lion's den and thinks she's in a church. I didn't know he was your father. Can you hear me? Get out, or else I will run over you. Run over you. <sighs> I want to see that.